Basumon, Basumon Bare. Basumon, Basumon Bare, c'est un encore habité. Mazinoumi. Une vérité saine vaut mieux qu'un mensonge, qu'un mensonge qui va faire d'un pays ce qui doit être. J'ai dit non. D'abord, encore une fois, mes condoléances au peuple de la Guinée. Sincèrement, mes condoléances. Je vois les images de plus en plus, ça me monde. Nos condoléances. Après, on va venir sur les affaires et sur les attaques. en 2025, Inch'Allah, le Sénégal fera partie du BRICS. Le Sénégal va adhérer à cette nouvelle monnaie. Grâce au prochain jour électoral que le Sénégal va organiser en 2024, le 25 février plus précisément, il se passe des, il se passe des choses de bas niveau, des choses qu'un État ne doit pas admettre, qu'une République ne doit pas juger. Et lors des premiers journées, j'étais bien clair là-dessus. Soit on sabote tout le pays, on casse tout et puis on passe à autre chose. Soit on y va vers des négociations. Soit celui qui doit partir, celui que son contrat est fini, celui que son contrat de location est terminé, va quitter. Mais en laissant sa caution, parce qu'on va vérifier. Si la maison qu'on l'avait remis, s'il était en ordre, si les murs ne sont pas trués, si les portes ne sont pas, si ce n'est pas, si ce n'est pas. Ce que refuse Macky je vais faire un petit live, un très court live, parce qu'on est sur quelque chose qu'on va vous expliquer et ça sera très clair. Depuis 5 ans, Macky Sall essaie d'éliminer. Il a éliminé les autres leaders politiques, mais depuis 5 ans, il essaie d'éliminer Ousmane Sonko, depuis 5 ans. Tout le monde pensait que l'État était avec Macky Sall. Vous tous, nous tous. Personne ne croyait à cet État-là. Qu'est-ce que c'est que l'État C'est la justice. Qu'est-ce que c'est que l'État C'est vous, les populations. Maintenant, on va procéder par deux solutions seulement. Et je pense qu'Ousmane Sonko a tout gagné. Sonko a tout gagné. Sincèrement, il a gagné tous les procès. La population a déjà assez combattu, sincèrement. peuple bi jaaraama yéen yéen prisonniers yi jaaraama en commençant par Ousmane Kabiline Diatta premier détenu des forces spéciales le premier détenu des forces mélancoliques de Macky Sall Ousmane Kabiline Diatta maire Amidia Ndongo Diop booy bu ma faroon di ko seetaan booy bu ñu blessé Touré

yow mii di góor bu la fekkee ngay xeex jigéen nga xale te ku luwee sa kër ne la man duma dem nga ne ko non xëy na ma bàyyi la fi jékki-jékki nga ne ko waa léegi sax yow eh doo def ñetti at sama kër ah, ñaari at nga fiy def par force ak docteur wax tel at nga war dee da nga am sida wala da am jàngoro boo xam ne dalay rey ak koo xam mosul jaay reewandi te réew reewandi yoru ko mooy koo xam ne mosul am opportunité reewandi am ay canin parental yooyu ko manqué moo tax muy toog nag da ngeen may ñaanal ndeysaan xeeb sa bopp hey eh, xeeb sa bopp est-ce que jar naa man je me demande non peuple justice mënul ñëw dogal dogal yi mu dogal yi yëpp tey ñu toroxal met nga xam moy seen ko policiers yi ko papa mais si fu ñu policiers c'est être méconnaissable de la République c'est être méconnaissable de qu'est-ce que c'est que l'État c'est être méconnaissable de cette Qu'est-ce que c'est les ordres, quoi Les ordres qui sont à exécuter sans hésitation ni murmure. Et l'autorité qui les donne en est entièrement responsable. Et ces ordres-là, on a fait quoi Ça, bi xam nga ku war le gouvernement xam nga vu ça. Antoine Djom, mi yore combat bi Soussouf suuf ak Thiendella Fall ba tay faté ngeen ko yéen ñëpp te xoola mu combat moom ni ko nexé sous la de Marème Faye ya ngeen ne ngeen foog lii yoon la tey li ñu def Me Clédor buntu DG ne yéen duñu jël seen kii te bu ñu xeexee xeexu mbooloo Macky Sall attendez def na douze ans ba pare de xeex ak ñu taal ndey Sénégal yi militaires yi jël réew mi ñu def tey coup d'état moo koy gënul tey Ousmane Sonko jàll dem élection moo taxoon keroog ma ne leen foog ngeen xam li ñu bëgg foog ngeen xam li ngeen bëgg ñun boo ñu bàyyi woon. te état xamna metti metti ak dogal yi Macky Sall li mu fi mu jëm a un peuple bo leen jëlul sen responsabilité deuxième état bi dina jël responsabilité premier état dans une nation c'est vous le peuple c'est vous la jeunesse yéen jaaykatu tu yi yéen ñi ñuy fayloo factures yu cher yi yéen ñi di dund dund yu cher yi yéen ñi seen doom yi dugg si géej gi yéen ñi di jàpp tëj ci kaso bi yéen ñi seen doom yi ànd ak politiciens yi di rëpëj rëpëj mamaay seen doom yëpp ñu ngi ci àll bi di supporter ay politiciens yéen ñoo ñooy premier couche bu état yéen la premier couche yu état yéen patriotes yi la yéen waa PS la yéen ñoom maire Aminata Mbengue Ndiaye yéen Bougane Gueye Dany yéen colonel Cheikh Tidiane Mbodj yéen Cheikh Omar Diagne bi nekk ci kaso bi deuxième couche état mooy suñu doom yi ñu fayal ñu def formation militaire ñoom gendarme ñoom juge ñoom procureur ñoom enseignant ñoom infirmier ñoom navigateur ñoom sapeur pompier ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñooy deuxième couche état Comme yen, yen fort, nous nous nous une majorité bi. Nous a 15 millions parce qu'il n'y a pas 2, millions de fonctionnaires au Sénégal. Nous a 15 millions, nous potentialités. potentialité réelle. Si 15 millions, 6 millions électeurs, il y a 3 millions qui ont voté pour faire couche a une faible tirée. La couche faible tirée au gouvernement. Parce que le gouvernement est une minoritaire te ñoo gën a xajati réew ñoo dàq def yëfu caag-caag ci réew gouvernement mooy troisième couche état et c'est très faible mais lu ñu leen téye fetal rey nañu rey ba kontaan xam nañ ne yegg si nañ ci cappaandaw gi bëgg bëre bañ bëre ti Sonko yeew la ku mu tufli nga gumba bo gumbee nit ni yërëm la bu la nit ñi yërëmee fal la kot man de sincèrement tey li ñu def Clédor metti na ma mais xol dama ko xol sama xol féex ndax la justice est déjà dit la la justice a été déjà dite le droit a été dit léegi pourquoi ñu rabaissé wu ba war wacc ak dem fi Macky Sall nekk suufu égu yi suufu foos yi xun muy ñëw di xeex ak mom après xeex boobu lan laa si gagné même su ma ko dóoree bëggee mu ñëm naaj après yow xet bi la lay toog ca mbay nit da ngay njomb maki ñoo ko mën dañ ko noq noq noq noq noq bi wër ko ndomb li mu prévoir on yëpp daanoo loolu la mënul supporter mais léegi ñun suñu deuxième couche suñu deuxième force ñu ñooy un mais waa numéro deux bi ñoom ñoo gérer triangle ba numéro 2 bi ñoom maam gendarme te numéro 2 bi ñu si ëpp doole maam militaire la ñoom colonel Cheikh Tidiane Mbodj la ñoom général Philippe Diallo ñoom général Kan la ñu si ëpp doole Fulbert Sambou la ñi ci ëpp doole laay wax maanaam militaire yi mooy code ba justice nag interlocuteur am direct muy police militaire yi muy gendarmerie justice mu ngi dogal gouvernement di bañ mu dogalaat gouvernement bi di bañ yéen peuple boo leen réagirul waa léegi bu suñuy doom réagiré mooy deuxième couche état bi ñu formé ba ne leen bu réew mi nekkul ci yoon yéen a war défendre intérêt réew mi yéen war def lii yéen a war def lii boo leen ñooñu bu ñu réagiré mba rew numéro 1 bi détachement religieux wa keur kilifa dina mba do len genn wax te keroog bi juste ton joxé résultat ko len sama live bu fajar la live man len ne ñëpp génn wax gaaw bala muy ñaw bala Macky Sall di top affaire bi muy ñaw bané la yow bàyyi maay ñes génnal wax yow kese tuxoo fi yamba ñëpp ay dóori bon yamba tax to bon ndax yalla topul kenn ndax yamba amul yalla ndialo ko ci lay top ñi adultère té lolu dafa xew Sénégal dootu fa bakkar foog ñu ko de xeex bi gars yi billaay ñu leen gën bëgg xeex mais xeex bi buñ ko xeexee soyons-en sûrs et foog ñu xam li ñu bëgg man xam nga la laay bañ ni moment yi lu mu mënul concevoir xeex bàyyi fi Macky Sall yéen ñëpp xam ngeen ne mënatul nekk foog ñu waxante dëgg tam kenn mënatul xeex bàyyi fi Macky Sall mënatul nekk de man de bu leen leeral ne da ngeen di jox xeex pour taal ay pëna après Macky def fi ñoom Sidiki Kaba di organiser élection les jeunes croiser les bras dem leen jëli seen carte bu leen leera na nag da ngeen di xeex Macky Sall daa bëgg a yàqu noo ñu ànd ak moom yàqu tojat nday lépp militaires yi jël réew mi ñu dem transition deux ans te transition militaire yi pile de hi moo ñuy gën a arrangé que élection ñu génnee Ousmane Sonko tey kaso mu bokk ci élection yi tey coup d'état am moo ñu gën a arrangé parce que coup d'état bi daf ñuy permettre Nous cassons déjà la constitution Déjà la constitution ça ne nous regarde pas faut que nous cassions def ko ah. à la sénégalité Nous ko def une constitution hérérique nous et daw constitution de une constitution hérérique militaire vous ati jari Wafa banque ngi grève depuis deux mois Abdou Mbaye yóbbu woon ko ba niveau bu kawe naar yi ñëw yóbbu Abdou Mbaye calculel yóbbu woon ko ba salaire deux cent cinquante mille naar bi ñëw yóbbu ko salaire cent quarante mille ak dagg yu bëri boo grévé ñu defal la fin de mission arrêt mën nga fi liggéey onze ans naar bi xëy marocain waxuma leen tubaab de marocain moo tax ma leen samay maam ñoo ma gënal seeni maam arab loolu la Macky Sall def seba yaaw ñu ngi grève depuis deux mois kan moo ci wax pourtant Macky Sall ko jël sarax ko arabe bi ñu andi ay CE di la fay cinq mille ngay am caisse 150 millions ñu lay fay 65000 francs SGBS bu tubaab bi di fay 75000 CE. léegi ñu créer ay agence intérim comme France yow dëkk boo xam ne y' a pas un million de fonctionnaires nga créé ay agence d' intérim ça veut nañu ren di xale yi xale yi taal leen day agence d' intérim yëpp. c'est du vol les agents d'intérim qu'on vous a créé au Sénégal affaire u doome xaraam la affaire u xam nga lan la man dama naan rëgg dëj sama taat yow ngay liggéey yow yaay ñaq affaire golo di bay baaboon di dundee la ñoom dañuy ñaq si yéen si seen ñaq li ñuy jël ñoom jël ñu taal leen ndey lépp luy intérim xam naa bu baax fi may waxee intérim xajagul Sénégal statistique mayuñu ko taux de croissance mayuñu ko mais ñu pour ngeen am ay intérim ba ñu leen fay jaar di leen xoj yéen xale yi préparé leen ay affaire tool yi indo yi jël tool yooyu yëpp c'est à récupérer gis nga pour lan mën a leen élection xam nga luy danger élection na Sonko génn kaso ñu dem élection ngeen foog ni dafay xëy rek ci ay wax ni mu dem récupérer suñuy jamaa il ne va rien récupérer ndax lépp ci ay kayit la nekk foog nga jaaraat assemblée yéeg wàccaat pour récupérer yéen ñi militaire lolou la gën a ci réew té amul bénn civil bu gën jang suñu militaire yi amul civil bénn jang lay jang militaire day jang jangat kon té pour ñu defaraat éducation réew mi man moom éducation bi ma sonal je m'en fous de l'économie sans éducation le Sénégal ne tiendra jamais au niveau économique je m'en fous de la religion sénégalaise sans éducation le Sénégal ne sera jamais un pays religieux ni un pays musulman ni catholique sans éducation, le commerce ne va jamais marcher au Sénégal. Ni le transport, ni la pêche, ni rien du tout. Sans éducation. Éducation, moi, l'on déloue ses valeurs de base. Am ay njombuteef. alxuraan ne dundee loolu looloo gën ñu dundee ko ndax dañu war a toppandoor yeneen yi archi faux ñu ngi dagg live bi archi faux alxuraan nee na kul xówoo lii la waaw wante bul ne ma nii la maam naar doon dundee foo yow nit ku ñëw li ngay dund dund ko boo julli sa digganteeg sa borom la bul ko xaax bul ko xiixi xiw julli ko yow noir nit nga say yonent la muhammad roy sallallahu alayhi wa sallam maamam ibrahima la gën a bëgg te ibrahima ñuul kurum xajara ñuul kurum tey ñu bëgg la ne yow bàyyi sa culture te naay ba naar bàyyil culture am ñu lay toppaloo sa culture eh damay tëj parce que ibaadu yi dama newoon du ma di wax seen wax mais bàyyi leen di jaxase carte gi kenn du tëgg di way da ngay ni sóob sallallahu alayhi wa sallam fi fekk ñuy tëgg jaamu yàlla te yéen Sénégal nañ leen wax arab bonne religion lañ nekkoon ak ban croyance lañ nekkoon ils étaient dans une croyance hébraïque avant Rasulullah di am 40 ans di nekk Mohammed. sallallahu alayhi wa sallam si bopam ñom laaj leen lan lañ won bañu sainteté ils étaient dans la foi hébraïque dans la civilisation hébraïque dans la lépp lu am ci diine presque c'est hébraïque moo tax ñu rende ay xaru tabaskeek lépp ci Abraham c'était une civilisation hébraïque depuis Abraham loolu juif yi appliqué wuñu ko mais c'est hébraïque entre l'hébreu et les juifs une grande différence yonent bi mosul xeeb nit ku ñuul mosul def nit ku ñuul jaam ñu ñëw fexe ba defal leen ne ay jaam ngeen ku woorul na nga sa libéré sa jàmm mu dem ku nekk bëgg a am jàmm ku lay duul léegi Sénégal amatul jàmm de kuy duul mooy jàmm réew mi day changé par force dañuy xam li ñuy bëgg def ko mais bu dee mën a man l'état va prendre ses responsabilités de peuple bi du ma leen nëbb de boo leen xeexee boo leen xeexul décision de justice yi gouvernement bi di bañ appliquer di dof doflu Si l'État veut rester fort, si l'État doit rester fort, l'État va prendre ses responsabilités jusqu'au dernier goutte de sang. dëkk bi pour régler waat ko nii waratuñu ragal jël ay responsabilité bu ñu doon rey ndeyu ay kilifa fii rey rendi l'en da koy jar def comme Yaya Jammeh pour régler Sénégal def comme Paul Kagame pour régler Sénégal man loolu laa mais lolu du peuple mokay parce que peuple bi pour Le peuple bi ils en ont marre xamuñu deret bu beuri leen Sénégal ak forêt c'est trop tard donc ñun maintien rek ba élection ak Ousmane Sonko mais giñ sama ak sama borom conseil constitutionnel su lu mu ak décision décision juge Macky Sall du fekkee élection deux mille vingt quatre yi Macky du fekkee élection du mille vingt quatre yi te lu ma si metti di ngeen toog ba si biir ne non du ñu complot ay coup d'état dañu complot waa léegi nag bu ñu dóoree ndayam di ngeen xam ndax du ñu complot wala complot ñu bés bu ñu ko dóoree bal mu wàcc ñu tuur deretam ci diggu réew mi dingeen xam ndax ñu jël réew mi dañuy complot wala complot ñu te su boobaa di ngeen ma gis ma wàcc ci Sénégal après on va voir ki kii kii di ngeen xam ndax dañuy complot wala complot ñu basuma basuma baree

ñen ñi mënuma wax xawma lan la mënuma ko man yenn yi base ci boko wacce ta te ngay homme d'état ñu jang état def suñu formation am ci déontologie am ci pédagogie am ci lepp nga bëggati wacc à ce niveau non man je ne crois pas à ça du ma ci wax non non ku bëgg xex nak da ngay xam lo bëgg xex bi gañ ngeen yëpp ñi méré wum Sonko nan dafa violent dafa yëpp tay ñepp a tay Macky Sall respecté wul justice du Sonko tay ñepp a ak li sëriñu ñaan yëpp Macky Sall respecté wu sëriñu du Sonko donc les gars restez serein ñu fexe mbapat ba yegg de mil vingt quatre te xam ne yéen civil yi deseetu leen xeex bi xeex bi ñu koy xeex bu Macky sàll am na fu bouton bi yegg daañu ko xeex bu neexee suñu borom daañu xeex xeex bi mais yéen les civils ñuy tuur seen bakken déedéet bàyyi leen ñoom seen biir ñu deewoo pas yéen ndax juge yi li ñuy préparé bés bu matee di ngeen xam nag Sonko dina bokk. wala du bok bu Sonko bok le pays ne sera plus jamais stable pour clôturer mola morgan félicitations may deug ci affaire Amadou Ba Sénégal réfléchissons de ñu ngi ci tourneur bu très dangereux ngén na ñaari jabar la am maram faisal gis nga nu mu tibbee huit millions yobou fan xaw ma huit milliards yobou fan Suisse xam nga maram faisal au moins lu mu sat Sénégal la koy def lu mu lek Sénégal la koy def calculer leen kii ñaari jabaram kenn ki lu mu sàcc si réew mi fondation bi mu mënti ubbi Sénégal ay mbokkam la koy financé keneen ki fondation bu mu mënti ubbi ay mbokkam mauritanien la koy financé Sénégal réfléchissez leen xalaat leen foofu li lay war a suuli Sonko ñaari soxnaam Sénégal lañu dëkk fondation bu ñu mënti ubbi jëriñu Sénégal la mais ñaari côté jabar yëpp Amadou Ba déjà moom côté Guinée la carrément beneen jabaram nekk Guinée carrément kon kooku lu mu mënte sàcc Sénégal du duggaat Sénégal gine kon Guinée Conakry lay jëriñ bu Mauritanie bi nag ça sera pire ndax lu mu mënti jël moritani lay dugg te moritani bokkul ci ay droit de l'homme ak ay CEDEAO yi bokku ci réfléchissez yéen ñi di lekk xaalis bi di jabatu damay ragal ëllëg yéenay tourné di ñu xeex moo tax man leen moytu leen réfléchissez sénégalais ay apatrides ñoo xam bokkuñu ci dëkk bi mënuñu leen fi fal mun la nañ ma ndax ñu la pour xaw lan li nga publier man man vie privée du ci dugg mais du vie privée parce que les femmes là ne sont pas des sénégalaises et c'est très dangereux Côte d'Ivoire tey loolu ko gis nga ku ay mbokkam di dund di nooyi ay nijaayam ak ay yëpp ngeen bëgg mu toog Sénégal di tëbb suñu milliard jox ko ban sëriñ ay jabaram gëmuñu sëriñ xamuñu affaire marabu gayen seeni mbokk ngi Mauritanie ñoom lañ koy dem jox Sénégal xalaat leen non man Sénégal je ne ku nekk yaa ngi xaar ñu corrompre la te kii fondation servir le Sénégal mooy gin gën téeméeri yoon fondation servir la Guinée ou fondation servir la Mauritanie moytu leen fondation Sérère laa Guinée bés bu fi amee xam nga torox ngeen di ngeen gën a torox fondation la moritani moom bés du fi amee mooy Saint-Louis yéen nappakat yi dootu leen napp bés boo leen dof dof la ba fondation servir la Mauritanie am biir Sénégal jiite suñu réew ñun yéen nappkat yi dootu leen napp